fun kër nattee rek suñu bopp xamul fan la yéen tax ni mu jógee suñu biir xol salaamaaleykum mbokk yi alxaaji ma dikke ñang moo leen di nuyu yéen ñëpp di ziyaar bu baax Seydi Bakar di ziyaar kenn soppali mbooleem njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick di ko teg ci loxol Seydi Bakar moom ak ñi mu àndal ñëpp ziyaar boo xam ne bag ne ci xolam la ko jële moom ak ñi mu àndal ñëpp wax nii li may jëkk wax mooy waaye sëñ bi la doon ndigal te ndigal mooy jëfe rek te suñ ko ko jëfe ki nekk doo si daje lu dul yiw ne toogaay bi ñu toog fii ci kaw nee na gêné na lool waaye nag ne ndigal la de dañ leen koo jox te ndigal nag moom boo mënee defal boo mënul li defal eh, bi président Ablaye Wade si boppam moom moo ko composé boppam. nee délégation bii ñëw fii président Abdoulaye ci boppam moom moo ko composé boppam. moo woo ñi leen bàyyi li ngay def dem ziyaaral ma ci ëpp ni leen bàyyi leen li ngeen def te ngeen àndandoo yéen ñëpp ngeen di ziyaaral ma Seydi Ababacar nuyul ma ko. ci guddi gii nga xam ne mooy guddi yoon Yàlla Muhammad gaa si ginnaaw ah. coalition bi rek suñu coalition yëpp ñëw. ne ñoom nag seen coalition yëpp ñëw nañu. Mamadou Diop Decroix mi ngi toog. Mamadou Diop Decroix bi mi ngi toog. Seck moo représenté président Pape Diop. ñëpp dañoo mënul woon ñëw. ndax assemblée nationale euh, mi ngi am réunion léegi. ndax assemblée nationale mi ngi am mën ñëw. moom na toog moom ñu ànd. àndandoo ñëw. lii moo tax Pape Diop ñëwu fi. moo tax Pape Diop ñëwu fi. waa PDS nag kenn waa PDS nag nee na kenn desul. su ma leen mën naa présenter ñëpp de ndax koo àndal ku ne ku ne xam turam waaye nag bañ jël taal moo tax rek mu gàttal lim kenn rek mu yóbbaale ñëpp. ñun xam na lim nu defal ak yiw gi ñoom xam nañu li nga leen defal ak yiw gi nga xam ni ñoom moom nga leen teeroo ñu sant bu baax di ko gërëm président Ablaye Wade alxaaji ma dikke ne si turu son excellence président Ablaye Wade rek mu jukki ngeen may ko rek mu jukki tudd tudd Umar Sarr. tudd général. secrétaire nee nga jukkiwaale. Amadou nee nga jukkiwaale it Amadou Sall. Amadou Sall boobu. yow da nga ñu waroon jiitu sax teeru. nee ko dafa ni ko yow da nga ñu waroon di waaye nag boobu ko waxee mu xam ne moom it loolu waroon def moom ma tikkee. kon ñëppay teeru seen morom dëgg te loolu sa mbaax la si. te nee loolu mën a saako jël bare ko lere lool. yàlla nañu la yàlla fay. yàlla nañu la yàlla fay. président France moom mooy nee mooy ñëwal boppam. ñëw bi mu fi mujj. nee ñëw bi fi mujj rek. wax na si yow ay ci yow ay wax yoo xam ni wax dëgg yàlla ku ko dégg sa xol set. nee man daal président Ablaye Wade ki ma gis. doy na ma doy na ma. ni mu gëmee boroomam. doy na ma ci ni mu gëmee boroomam. doy na ma si ni mu mën saafonte ak doy na ma ci ni mu mën a saafonte ak nit. doy na ma si nite gi mu na ma ci nite gi mu doon. doy na ma si mbaax gi ma na ma it ci mbaax gi ma gis ci moom. loolu nag président moo ko wax ni ko na ko répété ba ñëpp. teg na si. président nag teg na ci. ni gëm naa ni. ni gëm naa ni. yoon wi. yoon wi. yoonu yoonu maam El Hadj Malick si. yoonu maam Cheikh El Hadj Malick si bii. tegu na ci loxo yu wóor. kon moom ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool. jëmale kanam. jëmale kanam. lépp loo xam ni. lépp loo xam ni. sëñ Mansour. sëñ Mansour. sëriñ Cheikh Siyaar Si Al Maktoum. sëriñ Abdoul Aziz. naaloon nañu am yéene pour def ko. yàlla dogalu ko. yàlla dogalu ko. yàlla naka nee na ma yàlla naka mottali. nee na ko yàlla naka mottali. ba naalu bopp. sëñ bi sunu ñëw bi. sëñ sunu ñëw bi nag. mooy ñëw. wan la ni teg nañ la fukawe wan la ni la wan la it ni la. yaa ngi suñu biir xol yaa ngi ci suñu biir xol yi. wan la ni wan la it ni la. ñun ay jullit la ñun daal ay jullit la. te li ngeen di def. te li ngeen di def. jullit yëpp ngeen koy defal ah. kon nag si ci lañu bokk. suñu yaakaar dugg ci suñu yaakaar dugg ci. suñu gëm dugg ci ci. moo tax suñoo ñëw moo tax suñuy ñëw. ak cawarte gu mat sëkk ak gu mat sëkk la ñuy ñëw kon ñëw suñu bëgg ñëw na. des li ci des nag. mooy wax ni ñu ngi nag suñu loxo wax nag waaye ñaan gu jëkk gi ñu jëmale ko suñu kilifa ñu jëmale ko suñu kilifa président Abdoulaye Wade bëgg na réew mi Sénégal ñor ko ñun ñii it ñor nañ ko kon yàlla na fi yàgg kon yàlla na fi yàgg te wér di ñaan aussi di ñaan aussi bëgg ci réew mi ñun li ñu bëgg ci réew mi lu dul réew mi jëm kanam rek lu dul réew mi jëm kanam rek la ñu bëgg. li ñu bëgg ci réew mi li ñu bëgg ci réew mi. mooy jàmm sax fi mooy jàmm sax fi. mu jëm kanam mu jëm kanam. yàlla may nu yàlla may nu. suñu yéene si réew mi suñu yéene ci réew mi. ñu mën ko mottali ñu mën koo mottali. ak bépp sénégalais ak bépp sénégalais boo xam ni. ñoo bokk bëgg ñoo bokk bëgg. sëñ bi doonu dégg. sëñ bi doonu dégg. ci fitna. ci fitna. doonu dégg. doonu dégg. ci yàq. ci yàq. doonu dégg. doonu dégg. ci wax ju ñaaw. ci wax ju ñaaw. suñu bëgg-bëgg yëpp. suñu bëgg-bëgg yëpp. mooy liggéeyal réew mooy liggéeyal réew mi waaye def ko. waaye def ko. ci valeur yi nga xam ci valeur yi nag yi xam ni. Sénégal yi moom la ñu. yi moom xam moom la ñu xam. valeur yi nga xam ni. valeur yi nga xam ni. diine ci la sukkandiku. diine ci la sukkandiku. lépp lu diine sib. lépp lu diine sib. lépp lu diine xajamal. lépp lu diine xajamal. yàlla nañu ko yàlla mooyale mooyale. ñu ngi yemale foofu kaddu yi ñu ngi foofu nag kaddu yi. di do di dolli di la ñaanal. di dolli nag di la ñaanal. ba nu yaak sunu yaakaar yëpp sunu la ko jébbalee. sunu yaakaar yëpp nag bu la ko jébbalee. si ña si wax ni nang ñu ñaanal si bés bi ci wax la ni la nanga ñu ñaanal ci bés bi daanu jël sunu ñaan gu tuuti googu. daañu jël sunu ñaan gu tuuti googu. waaye ñaanu julit waaye ñaanu julit ña ñaanu ku gëm borom bi. ñaanu ku gëm borom bi. ñaanu ku ko xam ni. ñaanu koo xam ni. li noo defal rasulullahi. li ñuy defal rasulullahi sallallahu ku si tàbbi ñaan ñaan. ñaan googu dana yàlla dana ko mën. ñaan googu yàlla mën na koo nangu. kon kon. Euh, euh, euh, sëriñ bi yàlla na yàlla nga fi yàgg te wér. sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg te yàlla nga jëmale kanam. yàlla na nga jëmale kanam. lisla lislaam bi yëpp. lislaam bi yëpp. ci biir lislaam bi. ci biir lislaam bi. tarixa yëpp a ngi ci. yëpp a ngi ci. kon loolu mooy sunu kàddu. loolu daal si mooy sunu kàddu. te bala noo jeexal. nee te bala ñuy jeexal na wax ni waa Tiwaawoon yëpp a teeru. ñu xam nag waxal nañ la waa Tiwaawoon yëpp ñoo ñu teeru. sunu waa coalition bi nekk Tiwaawoon. seen waa coalition bi nekk Tiwaawoon. te Maodo Gueye jiite ko. te Maodo Gueye jiite ko. ñoom ñëpp a ngi fi. ñoom ñëpp a ngi fi. sëñ bi jërëjëf. sëñ bi daal jërëjëf. wan nga ni. wan nga nu ñu ni. tànneef nga tànneef nga borom jikko yu rafet borom jikko yu rafet nga nii nga toogee rek nii nga toogee rek ak ni nga doxaleek ñun ak ni nga doxaleeg ñun suñu xol sedd na suñu xol sedd na jërëjëf jërëjëf